combat bi mujj fii arène nationale la ko bëree dafa am ndam ci diggante mag réparé deux jàmbaar jël ko boole ko xale bii nga xamante ni mooy caatu ndiwal li wolof naan gaynde mer la fanaanoo mu bëre arène nationale moom it bisam bu mujj daf ko ñàkk mu nekk combat boo xamante ne yaakaar naa ne ñu bari ci làmb bu ñu leen waxee affiche bi dinañ ci kontaan komba bi nag bëggoon naa xam waa jàmbaar nu ñu def ba taxawalaat ko ndax yaakaar naa ne bu ñu nee jàmbaar rek sa xel day dem ci bis boo xamante ne jàpp nañ ni combat bi warul mun a taxaw jàmbaar taxawal ko ñoom ñaar kan moo ci bëgg sa morom ñoom ñaar est-ce que xamante nañ ñoom ñaar combat bi combat wu lan la dañuy njëkk a jox xale bi nga xamante ne mooy Anaconda mu nuyoo su ko defee ñu wel waxtaan ndax moo njëkk a toog ano nuyu naa. ah auzu billah bismillah ina woon yàlla. jërëjëf Serigne Touba seex Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gàcce ngaalaamaa borom daaru noré ni waaw gannaaw bañ sant yàlla di julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur waaw di bëggee ñu fi taxaw nii yëpp di la tamit di bëggee sama adversaire waaw yaa salaam daal siyaar yee bàyyi ji li maa ngi lay fay ginnaaw biñ sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu waa yëpp di nuyu Ngor Wakaam Yoff di jël nuyu waa di ko toog si loxo xalifa général maam Doudou Laye di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu di ñaanal Baye Abdoulaye Thiaw di ñaan yàlla yokk ay leeram di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo nekkal foofu Serigne Touba. di nuyu sama Serigne Serigne Cheikh Fall borom ngàcc di bëggee sama gaay yi ma àndal Vincent ak Arouna di bëggee sama grand fay ma fekk di la bëggee di bëggee Anaconda. ba ñuy xam naa ko waaw. Ikir Ibrahima Ndiaye. noo def ba dama doon dem Ikir Ibrahima Ndiaye di fa ànd ak Ibrahima. dafa ànd ak bébé biraay. waaw kon yàgg nga ko miin. yaa yàgg naa koo xam xam naa ko xam na ma bu baax xamante ne ñun ñaar. gën a xam sa morom ah, man de li jàpp naa ne xam naa ko te jàpp naa ne moom la ni ma ko xamee la ma xame rek xamante nan de. waaw bu baax waaw. mos ngeen a bëre. non mosuñoo bëre. a hmm. non. mosoo leen sax fooy ne seen ikiri mais mosuñoo am chance su bëre xam naa ko bu baax. Hmm. waaye. lan nga moom. li ma fas moom mooy làmb. xam nga ndax ñoom ñu ngi topp sama ginnaaw depuis boobu ba léegi caatu ngewelam caatu ngewel indi caatu ngewel ku ne woo ma ay gaawam ay xaritam xam nga ku ne di ma woo. bu fekk waaw non moom woowu ma mais ay gaawam ñu dëkk parcelle ku ne mooy woo. làmb ji ñoom luñ ci yaakaar bu dee jàmm ñu dalal leen jàmm bu baax bu dee leneen nag lañ ci bëgg. ñu dem si leneen ba mu mat sëkk ndax làmb la ñuy def te duñ caaxaan. géwal waaye nee na bu dee jàmm la fii la ëppee bu dee leneen la tamit fii la ëppee. avance bu duggee jàmm amatul moom. jàmm amatul combat vrai combat jàmm mun na am mais avance bu xasee bu dugg moom jàmm mun na si am waaw. Ah. kon avance moo yee fit na. waaw ah, nice parce que du ma ko yéene jàmm du ma ko yéene jàmm ba làmb ji jàll. ci xaar la kay wala foofu jàmm mun fa am. non mais yaa xam jàmm mun na am. Ah, parce que mënu ma ko yërëm ba pare di ko daan moom mënu ma yërëm bëgguma daan non non. Hmm. xam nga ko bu baax. xam nga ko. xam naa waaw. yan combat am nga mujjee seetaan ak nan lay bëri. champion la même pas combat am sax mais xam naa lu muy bëri xam naa bu baax. xam nga bu baax. waaw ah. la mu bëri lu muy bëri kay koy wax. dañ bàyyi ba jour insha Allah rek. la waaw ndaanaan la waaw nga lu ma la wax ndaanaan la hmm. bopp lañ gëm. waaw ah. dañ koy nag ndaanaan mais ñun suñu bopp lañ gëm. waaw hmm. ah. gëmuñu ndaanaanu kenn. waaw. Hmm. bi ngay mujj arène nationale da ngaa ñàkk moom gis nga bërki démb ndam li mu am ci diggante réparé lan moo tax suwaaw nga jël ki waaw xam nga bi ñuy mujj arène nationale danoo ñàkk te tamit làmb la ki ñu daan waroon noo mën a daan mais suwaa bi mooy maanaam wax bi dafa bari. xam nga wax bi dafa bari. si ñoom seen côté seen camp. ku ne déggoo parcelle la dëkk parcelle ñëpp woo nan ma. woo naan ma démb ay xaritam ñu bërki démb xaw ma démb ay xaritam ñoo mujjee woo ma téléphone. di ma ñaanal. mais ñoom xam na ni kii mbayaar bi la te bàyyi ji. dafa am lu ma amel waayoo te dama koy fay. lan la daf man amel waayoo man maanaam bàyyi ji li gis nga tey jii ni yoof ni ma fa yàlla def maa ko fa def sama bopp. xale laa dama fa nekk ak samay moroom mënuma leen ëpp ma leen doole daaxuma leen bëre. Hmm. mais yàlla daa def benn espoir bu nuy ràññee la nu am muy man kon du ma caaxaane loolu. tabarki Seydina Muhammad su ma ñëwaatee dinañ xam ne caatu ngi wér du caa non làmb la Anaconda champion la moom xëy na lu ko neex man na jàpp mais man laa la wax mm. waxuma pour sama combat bi mais maanaam li ma dese si làmb laa dootul foowe lu boo bëggee dégg-dégg dama doon foowe làmb barki Seydina Muhammad mm. dama ko doon foowe carrément mais dootuma foowe làmb kon de am nga problème doon foowe làmb dem ba léegi xam ne làmb du foowukaay du ko man dama yeboon waa parcelle dama moom ma yaboon ñu woo ma yedd ma boo xoolee sama dernier combat yi xam nga ne saa fu la laay bëri si xamul woon ki ñu doon mais dañoo wax ki ñu doon waaw. kon moom moo moom moo problème foofu. sa gars yi lu tax ñu ko doon woo di ko saraw. maanaam li ngay dund ak supporter hors secteur. ak feneen def dee ko doole biir quoi jarul nga koy wax si média bi mel ni kuy woote wàllu. xam nga man tey lu may moom supporter bu ñu deewoon ak man wax ma dara dama koy dund ak ñoom mais du aajo ma koy wax fii quoi parce que affaire la xam nga. samay supporter amuñu soxla ci yow. say supporters ñoo am soxla si man man samay supporters xalaatuñu laa woo sama supporter yab ma balay woo pour lan pour lan ñu lay woo. mais mais jëndax bu yabee mu si doxin bala man ma am caractère ak fulla boo xam ne góor du ma woo di ma dara. gis nga numéro numéro kii dégg nga xam nga kii li may wax teguwul ay caractère téléphone ku la si woo fan la caractère di feeñ si téléphone. kuy woote da koo mën a wax bul woote xanaa bloqué nga si man ndax doomu aadama bu wootee li mu bëgg wax lay wax kii utuma lu muy ut wàllu sama diggante man ak moom. kii man ak moom bàyyi jiili xam nga ni làmb yin bëre du benn adversaire yin bëreel du benn maa ko gën a pànk téeméeri yoon te wallaahi dinañ jëflante bu soobee sunu borom da de wallaahi di ngeen lu ko gaañ te man bàyyi daaru laa man ci digg ndaan dafay laa jógee si guddi ron bi lu bétti rek laa xam nelawoo seetaan nga sanuy combat kii musoo koo gis mu kalaate mbër musoo koo gis mu téefi mbër kalaate ko waaw mais bàyyi jiili seetaan nga samay combat mbër bu ma daw jublu xeex la daw mbër yëpp ñu ma bëreel yëpp kenn mu see taxaw dëggal boobu xeex ak man kii sànq wax na fi wax na ne moom mosuñoo bëree contact. Hmm. barki Seydina Muhammad bu nekk mosuñoo contact yàlla na ko yàlla may ndam bu set wecc moom. moom mi waaw dama ko daan ba doyal. ba ku ma ku li ma àndaloon dafa ma ne ndax kii mbër la. barki Seydine a ah, sëñ Fallou laa yaakaar ay yàlla bu ma fekkee tabaski ji kii xam nga kan la bëreel contact sekk ndaanaan kii bu dee mus nanoo bëre contact bu dee mus nanoo bëre contact yàlla na ma yenu ba si kaw wala mu dóor ma ma daanu barki alxuraan amin lu wax noonu amin contact yàlla na ma dóor ma daanu barki sëriñ Fallou man sëñ Fallou laa yaakaar du ma génne sëñ Fallou ay caaxaan barki Alaaji Fàllu Mbàkke kii musuma bëree moom contact sekk ndaanaan la musa bëreel contact te li ma lay wax bàyyi jili dina leer dina dem woo sekk ndaanaan jox ko sa numéro mu woo la nga dégg lim lay wax kii wallaahi azim musuma seetlu man bàyyi fu ma bëree ak sekk ndaanaan moom moom laa doon bëgg ah. li muy maye si làmb di ko di ko si làmb man dama ko munee denc ko li ma lay wax ñoom Sonatel ñu nga fa ñoom bé Birahim ñu nga fa barki Seydina Mouhamad ikiri Birahim Ndiaye bi ma fa demee ponkal yi laa doon bëreel di leen jaxase père Birahim ñëw ne ma tekkil sa ngemba li ma lay wax sona tele laa koy waxee mm. père Birahim ñëw ne ma booy tekkil sa ngemba ma tekki sama ngemba dem toog mu ooma si wetam ne ma boo góorgóorloo di nga doon champion gis naa li barki Seydina Muhammad kii musumaa contact ak moom wallaahi musumaa contact ak moom barki barki Seydina Muhammad li ma lay wax nii Père Birahim Ndiaye bis boo ko ko tegalee mu abuyel ne moom moo ko waxoon ba Sonatel a nga fa bébé Birahima nga fa est-ce que xam nga li ma lay wax kon li may wax may wax ñu ngi dund deewuñu kii Ikiréem dama fa ñëw waxuma moom de ponkal yi laa doon jàpp di leen jaxase. ay tey tey loolu tamit mbir la. mais xam nga tey waaw la doon jàpp man ñooñu mu doon jàpp di leen di leen def noonu. Mm-hmm. ñooñu samay lépp lañ samay grand lañ mais bu maag ñoom yemuñu si dara. père moom mu wax moo ko doon tagg père bu doon bu ñu ko waxoon mu jël benn mbër Sénégal man lay jël waaw ah. mais maanaam wax sa mbaaxu jàmbaare wàññiwu sa mbaaxu dara ja yow sa wàññ sa mbaax dara moo tax si moom mais kii maa moom si dara foof gën ko ñeme lu metti ñetti junni yoon barke maam maree musa yamuñu sax waxu maay waxu gàllaaj man bëre laa kii laa gëm sama sama entraînement laa gëm ak sama mën a bëre ay gàllaaj yooyu noonu sax père daf ma koy tere sax père daf may fekk ma sax gàllaaj si làmb sama tekki loo ma ko wallaahi azim man làmb teguma ko si ay musique ak yooyu sama doole laa gëm ak sama waaw ak yàlla suñu borom. kii de am na lu mu kii lu mu nar mais xam a kii maanaam mu ngi réeré si bon biir xam naa ndeysaan nag daa yaakaar ne ki mu doon kontagal moom la moo tax mu suuroo si PS <laughs> am na bis bu ñu waree contact mooy jour bi ñuy daje fii le 6 novembre. da nga nekk di neexal gem nii rek. waxtaan ah, jëlal bàyyi ji te lii nga mun wax. li ma la mën a mooy leen de kii mën a wax moom. suñu jëflante ñi fi taxaw ñëpp dinañ ko fekkee te bu bés baa mu Seydina Muhammad kii bu fu ma ko jaarloo fa lay jaar man yëpp ma waa parcelle lu mu dama jàpp daal nag comme sa morom fi jaar li ma leen wax rek man bër amaguma mbër mu résister ko yéen ñi ñëpp hmm. yow poñse si man naas nooy neex nga kii xam nga ne kii pare naa sama kii kii xam nga ne lamba doy waar rek ko jàpp ko dubu ko daan ko kii xam nga maanaam manax moom manax moom du ma ci débat daanaka pour man sarax laa bëgguma dara sama yaram ak sama kanam. yow li ngay wax kii rek Baye Djily bi xam na ne yow li ngay wax gëmoo ko. daanaka non non. Baye Djily yoonam wax rek. wala kii musul gis deretam si làmb ji <laughs> kii musul dóor kii barki alxuraan day deexal kii sañu la taxaw xeexax man sax billaay day deexal. wallaahi azim yorumaan ah ñemewul moom kii. jàppal kii barki alxuraan yorumaan la. te fi la ko waxee bu ma nee laa la ko waxee wallaahi bu ma nee bërët si kawam day daw yooru. barki alxuraan bu mënee bëreet si kawam billaay wallaay teel li ma lay wax vaar day am. yow si man yow teel li ma lay wax vaar day am billaahi kii bu ma nee bëreet si kawam day yooru. Bamba boo nee bëreet ma jaxasa bu baax. ñi la préparé ñoo ma yab mais yow man ak yow xam naa ne yow yaboo ma barki maam Seera Fall te yow fu ñu jàdd lu ma la ngay wax ni parce que ñi ñoo la ñi ñoo la ñi ñoo la wër. barki ngay wax man sax barki alxuraan yow musoo ma yab musoo ma ñeme làmb nag moo tax tay may wax sax ngay wax. yow foo ma romb ñaari loxo nga ma ñëw yam bu nu tëjoon fii si si toilette yi barki alxuraan ba fu mu fëggee dinañ fekk ma war sa kaw nga xonq cur barki alxuraan yow. booy tàppee nga wax te yaa ngi gën a métti combat bi del wax rek. combat bi kay daa war a métti Mor Kañ. ma fii nga la sa supporter rek ñu lay déglu wax leen lu mun a nekk boo leen diggee benn affaire ba ñu ñëw tamit après nga di cuub loolu baaxul man li may wax ñëpp xam nañ si mal la neex. waaw pare woo pour xeex waa yow. baa jëli ba ngaa dégg dëgg ba ngaa ba ngaa dégg dëgg laa la ba ngaa dégg dëgg sama retour moom mu ngi naan luy yomb ma nax moom amul luy yomb. Poutine mooy ñëw kii man ak moom dañuy bombardente ba ba kenn dee man ak moom jàmm jéena te kii man ak moom jàmm jéena géej man ak moom jàmm jéex na fépp te bu ma ne dama koy mettre en respect rek doom ko barke alxuraan. yow kañ nga Diop Fall ko neexoon mun nga jël place yow kaay da nga doon tàllal rek del tàllal. incha allah ah, ah, ah. eh, Anaconda caatu géwél du comédien de kii waru laa wax nga sol sa blog bu rafet rek bu la Diop Fall ak ay. non non bàyyil kii rek moom maanaam li may débat ci moom bëriwul mais bàyyi jiile yow. yàgg ngaa yàgg ngaa. ay combat bu neex ngaa reporté ay làmb. kii seetaan ñëw nga ay làmbam ñëw nga samay làmb kii man ak moom maanaam sunu sunu jikko sax si làmb kii maanaam moom. day daw yooru lan nga def si làmb man lu ma deful. moo ma jiit si làmb déglu li ma lay expliqué barke barke Seydina Muhammad déglu ma expliqué la moom moo ma jiit si làmb waaw wala déet mais moom moo bëgg bëreex man kii man am ma benn intérêt. Seydina Muhammad yow man keneen laa doon suwaa pour bëreex moom keneen lañ ma doon wax mais làmb moo bëgg suñu diggante maa yow. ma taxaw promoteur bee ngi nii na wax. jërëjëf am na solo am na solo am na solo man naar naar naar yaa ma lay topp di bugg a bëre yow. man naar naar yaa ngi dàkk rek. dànk rek mbokk yi gis ngeen <laughs> jàmbaar taxawalati nañ affiche boo xamante ne vraiment ñaar ñi dégg ay xarit lañ woon waaye léegi xarit làmb moom bu contrat amee xarit amatul moor nan ngeen def ba décroché Anaconda ak Caatu Njool waaw jili ñu ngi lay nuyu waa di nuyu waa Wassare Lamb di nuyu Kewel Info ñaari site yi yëpp ñu ngi leen di nuyu waa di rafet lu baax seen liggéey waa di nuyu ñaari champion yi Anaconda caatu ngéwal ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ku nekk turam ak santam waaw di rafetlu jotaay bi wax dëgg yàlla mën na ne Anaconda réparé ñaari technicien lan te ñun jàmbaar production wax dëgg yàlla dañuy bëgg affiche yu neex ndax dañoo jógee si journée bu am solo nekkoon le 19 juin passé tey jii amatuñ droit def erreur di jox amateur yi benn avis boo xam ne du leen neex. xam nga lii ñoom ñaar rek ku leen yóbboon Iba Mar Diop mën nañ tëj stade bi. parce que ay lan ay mbëru gox lan. kii Yoff da koo yaakaar kii Parcelles yaakaar ko. tey jii mën nañ ne ñoom ñaar ñu ngi naan xeex xeex mais man góoma ne xeex bi dina bari ci combat bi. Hmm. parce que xam naa ne ay bërekat lan. te comme ni ma ko waxee woon réparé Ah, diggante ak Anaconda ba mu taxawee dama ne woon top 5 war na mën a am foofu. combat bi ñoom ñaar suñu daanantee top 5 war na faa génn parce que ay ndaanaanu bërekat lan ku si nekk tamit nekk mbëru amateur Anaconda mbëru amateur la. Ah, caatu ngéwél mbëru amateur la di affiche bu am solo war a dugg si diggante Siteu ak Papa Sow le 6 novembre. ñu fas yéene ko def gala mën nañ ne ay combat yu mel ni kase ñoo si war a dugg. parce que tamit luñ tàmmal amateur yi la. mën nañ ne si Papa Sow bu mag la mënoon nañ jël ay mbër yu kenn xamul dugal si biir te teewul stade ni mu war a mel da koy mel mais ndem ñun ay amateur lañ dañuy bëgg affiche yu neex yoo xam ne suñ ko présenter amateurs yi ñëpp bëgg mooy waral affiche bu mel nii te yu mel nii bëri na yoo xam ne actuellement jàmbaar production nekk na di ko démarché xam naa ne bii moo njëkk a taxawagum mais fii ak di d'ici une semaine di nga gisaat yeneen yoo xam ne comme yii lay mel rek si biir journée boobu lay dugg incha allah le 6 novembre dans quatre mois. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk war naa mën a pare jaajëf maa ngi lay jaajëfal moor bu baax a baax a baax tàggatoo. waa xam nga ñun dañuy woote rek di woo combat bi ñu woo bu baax a baax a baax di woo waa Jilaas di woo waa Nangaat bu baax a baax di woo waa Ñoojoor di woo Bamba Bamba Ñoojoor maa ngi lay woo bu baax a baax si combat bi di woo waa Fadial bu baax di woo waa Yoff nag surtout waa Yoff maa ngi di woo bu baax. di woo waa Daara Jolof di leen wax ni combat bi seen combat la di wax magi Yoff yi ne leen li joxoon sampion yi nan nu ko jox ñu ñëw daan kii ndax instant yi toll nii dañ doon fowe làmb mais xam na ñu ñooy kan si làmb te combat bi nu ñëw bu ñëwee ñëpp dinañ xam ne ñëw nañ bu soobee suñu borom di tàllal ñëpp suñu loxo nag di wax waa Yoff dañ leen ameel bor di wax ni xam nga luñ fi wax ñu naan adversaire bi bu dee lu jubla ñu xam ne suñu borom la bu dee lu dëng la ñu xam ne doomu aadama la rek ndax tamit danoo war a jëflante man ak moom amul lu war a sedd. Hmm. man ak moom dara dara dara moom bu jàppee ni dara da siy sedd day nelaw dara du sedd. ba combat ba barki Seydina Muhammad maa ngi ko koy wax gumu ko man moom dara du sedd lépp day tàng jër moom lu mu xam na def mais man lépp lu ma xam dina ko def. Hmm. voilà déclaration bi leer leer na de maa ngi lay bàyyi nga tàggatoo. waaw di wax di sant waa jàmbaar production di leen bëggee di ñaanal bàyyi li ñu bëgg ñoo xam. yal yokk parce ñoom boo xoolee ba ma leen bëree yàggul ñu tëggaat suñu combat ak seen combat man di leen woowaat ñu gën see jàpp man mbëru mooy bëri am nga ñu may solal waaw parce maa ñoom ñoo far di woo président Mor Guy gi waaw di wax tamit grand max bu Liberté 4 na ñëw jàpp si combat bi nga na si jàpp bu baax quoi boobu ba tey ñu ngi koy déglu mu ngi siy jàpp si gën a jàpp. waaw di woo waa ñu gën see jàpp dooleel ñu waaw incha allah ak waa Liberté 4 grand F waa Sansala Opine xam nga cité millionnaire ñëpp maa leen di woo combat seen combat la gars si jàpp bu baax a baax waaw yaa salaam baay. koo a woo. maa ngi tamit di woo waa Dén sama dëkku maam di woo waa Bambilor waa Kër Ndiaye di woo waa Mbëtta waa Gorom 2 Gorom di woo waa tubaab jalaaw ñangal yeen di tax todda di di woo ñëpp di woo dëkki Lebu yëpp di woo waa Ngor aussi bu baax a baax di woo waa Wakaam di wax waa Yoff encore une fois combat bi combat la boo xamante ni combat nu jaral la na si ñëpp ñëw jàpp ñu ñëw jàpp waa ji xeex moom duma ko bëre moom daan ko dem ñibbi. incha am na solo Mor xanaa tamit di woote waaw Baye Jili waaw Jili waaw santaat yàlla rek waa julliwaat si yonent bi gërëmaat ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si staffu jàmbar production bi ñu ngi lay sant di la gërëm waa di jël nuyoo bi di ko teg si loxo PDG bi Mansour Ba waa di gërëm tamit sun maam père Ba waa lii yëpp su amee en fait bañ koy mën di def suñ père Ba moo nekk suñ ginnaaw ak staff yëpp ñu ngi koy ñaanal taxawaayam gën a yàgg Euh, mu gën a yàgg jàppale waa parcelle di wax Mansour Ba tamit taxawaayam si jeunesse su parcelle tamit gis nañ ko te tamit incha allah am lu am solo loo xam ne bëgg nañ ko liggéey si su parcelle bi. en dehors de mbër yi ñuy tëgg. Mm. Euh, côté nawetaan yi tamit bëgg nañ si dugal suñu loxo bu baax jàmbaar production si njiitu PDG bi Mansour Ba. Mm. fas yéeneen si euh, entamé si vacances ak euh, équipe nawetaan daal. Mm. waa di gërëm ñëpp di gërëm tamit Xaadim Anta Seck gërëm gaay yëpp ku si képp kuy jàpp si jàmbaar production daal ñu ngi lay gërëm di nuyu ñoom fay bu benn baraak ñoom Kaana gaay yëpp dañuy sonn si jàmbaar production bi Matar Ndiaye ménagère ñoom ñëpp dañ leen di gërëm parce que tamit lii su demee ba taxaw ñaari ménagère wax dëgg yàlla ñoom it jàpp nañ si di gërëm ñaari champion yi Anaconda waaw ak euh, caatu ngéwal di wax làmb la nañ dem waajal yi mois moom mbër mu si waajal war nga mën a am loo bëgg waaw di wax tamit que le meilleur gagne ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp suñuy rakk lan dëgg yàlla kii suñu rakk la kii suñu la ndam suñu borom a ko yor daal parce que tamit xam nga Bawol dëkk sama papa Bawol la dëkk sama yaay Bawol la dëkk mais boobu ba léegi gisuma ñoom tam ñu ñëw dugal seen loxo ñu ñëw jàpp si combat bi si carrière bi sax laa wax pas combat bi ma la wax di woo mafia zéro heure bu baax di leen wax li seen làmb la di bëgg Amet Sarr bi ma fi àndal ak Modou Fall ñoo ànd sama rax la waaw di leen bëgg wër a wéer a wéer di bëgg Baye Fall yaa salaam waaw jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ñaari xale yi li ñu wax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu jërë ngeen jëf